candidat de 2019 quatrième président wala cinquième président ñu ngi lay nuyu. bëggoon nañu xam tur beeg sant bi. mandataire de la coalition 2019 fii ci centre école bu waa Kër Madiabé waa élection dans la mesure bi nga xamante ne ñoo war a def seen devoir bu ci nekk ngi ñëw aussi boo xoolee déroulement yi on a fait des vérifications mais bi ñu xoolee daal gis nañ ne amul benn problème daal waa man lu ma gis moom fi mu toll nii duñu mën a wax sax gis-gis la ma naan yaakaar eh, eh! yaakaar par rapport ak euh, li liggéey ci am nañ ne ni ci di 2019 dina fi am nombre de ah? voix important daal non pas xaalis ñun amuñu xaalis mais moral lañu am ak programme Brise de à travers notre programme am nañu yaakaar ni daal vraiment li ñuy séntu ci élection yi euh, euh, la couleur orange moo ñuy identifié donc la marche orange vers le développement loolu daal am nañu dañ ci woo Sénégal gis nañ ne élection saa yu amaan nit ñi dañuy tiit surtout jour élection yi nii mais ñu ñëw gis nañ la sànq yow yaa ngi toog ak koo xam ne mooy mandataire Ousmane Sonko ak Macky Sall yéen candidat yëpp yéen a ngi dajee fii di kaf di foo di ree loolu loolu loolu lan la loolu lan mooy secret bi. loolu daal day wane ne au au delà de la de de de de la politique nous sommes des adversaires mais au delà de ça. Euh, am na loo xamante ni suñu culture la. suñu Sénégal dafa nekk pays boo xamante ni c'est un pays de paix euh, de dialogue. ak lu mënta xew quelle que soit opposition bi très aussi ñu ñu installé entre nous benn jàmm benn partage bi nga xamante ni. qui montre la démocratie également même au Sénégal. gis nañ ne kayit gi nga téye moom nangu woo ko bàyyi toujours bu naawee sax nga jàppaat ku lu ci nekk. waaw bon kayit bi tout simplement comme ñun ay représ ay mandataire lañ fii pour Euh, bu ñu bu ñu contacter ñu mën leen jox information yu fa xew. est que man nga mën nga ñu koo jox en direct si site bu euh, internet euh, site internet bi di Sekem TV. waaw mën naa leen ko jox loolu amul problème dama gis ne daal fii ñu nekk centre bi réyul daal. Mm-hmm. parce que globalement. dañ fi am 2332 inscrits. Mm-hmm. donc électeurs yi par rapport à la tendance au niveau national ñu gis nañ ne daal centre bu ndaw la ko. ñu gis ne centre bu ndaw la. waaw non man su ma njëriñ yaakaar ñaan yàlla. liggéey aussi dañuy am nañu yaakaar. dañu loolu. sa mot de la fin lan sa mot de la fin. bon sama de la fin maa ngi remercier population maa ngi citoyen nga xamante ni xam nañ ne vote c'est un devoir ñoom ñëpp ñëw nañu accomplir ko voilà di ñaan sénégalais yi comme niñ ko commencé ni ñu déroulé vote bi dans la transparence dans la sérénité ñu continuer ko jàmm sax parce que lii bu weesoo ñun jàmm rek moo moo fi nekkoon te moo fi des ba tey ñaan jàmm am di ci invité ñëpp